asalaamaaleykum euh, mbokk internet Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen euh, dalal euh, ci seen émission nay leer tey nag émission bi di dalal koo xamante ne kenn doot ko présenté sénégalais pratiquement ñëpp xam nañ ko muy ancien ministre de l'enseignement supérieur muy aussi ancien recteur nekkoon aussi PCA Petrosen muy monsieur Mary ñaan Niane mu ngi lay nuyu. Thierno Malick Ndiaye maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci li nga ma dalal fii ci Sénégal. may nuyu tamit sa auditrices yi ak auditeurs yi ñi nga xam ne dañuy janoog ñun fekkee waxtaan bi jërëjëf euh, monsieur Mary Teuw Niane comme euh, nuñ koy defee saa su ne actualité heure bu tero ñu xool kàngam bu mel ni comme ça genre ñu invité leen ci plateau yi ñu commencé directement ci ICAT ñu def ko meilleur universitaire lan moo ci xalaatu Mary Teuw Niane euh, am ci mbégte ndax mooy ICAT mooy suñu yaayu université yëpp donc suñu ko defee njiit ci université réew yi di làkk français loolu damay wax ni lu war la parce que moo doon université bi ñu jiitu taxawal ci réew yi di làkk francais donc su jëlee place boobu mbégte la wante man damay wax ni défi la ndax euh, soo jëlee classement boobu ñaar fukk ak juróom-ñetti université raw nañu ko ci te ay université réew yuy làkk anglais la mbaa université réew yuy làkk arabe <laughs> loolu nag moo war a tax ñun ñu gën a farlu jël mutukaay yépp que fii ak juróomi at mbaa fii ak fukki at université Dakar dugg ci juróomi université yi gën ci Afrique <laughs> dugg sax ci ñaari téeméeri université mbaa téeméeri université yi gën ci àdduna si <laughs> te mu nekk tamit classement Shanghai ndax boobu classement la nit ñi gën a ràññee ci àdduna si <laughs> léegi li ngay wax ni dégg nañ ko ngir euh, ñu yegg fi nga wax tey bokk ci cinq première yi lan nga foog na tey la ñu war a renforcer ci biir universitaire euh, defe naa ni dañu war a jëkk arrêté di yokk limu mu étudiant bu université Dakar <laughs> parce que en 2012 àggoon na téeméeri junni étudiant <laughs> en 2019 wàccoon na ba soixante seize mille étudiants Mm-hmm. te léegi yéegaat na encore or dañu war a continuer wàcceeku ci sama xalaat mm-hmm. bi mu àgg soixante mille mbaa même li doon gën cinquante mille étudiants mm-hmm. ñu yokk jàngalekat yi limu bi ndax loolu dana tax taux d'encadrement bi baax dana tax résultat étudiants yi gën a baax dana tax tamit jàngalekat yi ñu bañ leen sëf jàngale ba ñu bañ a am jot ngir def gëstu ndax gëstu bi dafa bokk li ëpp solo ci li université yi di rawanti beneen bi aussi mooy yokk matériel bi xam nga université surtout domaine science ak technologie mhm. dafa laaj ay laboratoire ay équipement yu mel noonu mhm. yokk équipement yooyu bi laboratoire yi jekku ñaareel ñetteel bi aussi mooy li ñuy jàngale ñu continuer di fexe bi mu gën a méngoo ak xar kanamu koom-koomu réew mi ndax loolu mooy tax aussi xale yi suñu amee lijaasa ñu mun di liggéey ci lu gën a gaaw beneen bi tamit mooy alal bi nguur gi di jox UCAD mu yokk alal boobu enfin beneen bi moo di anglais bi dafa am solo trop ci xam-xam tey ci àdduna si te dañu war a fexe xale yi jàng UCAD suñu paree seen licence ñu mën a jàng en anglais wala mën a dem ci yeneen réew sax yuy làkk anglais di fa jànge ak lu mel noonu ngir loolu aussi gën a yokk seen site web bi nga xam ni français la ñu fexe bi mu am version anglaise dana gën a tax ñu xam UCAD peut-être sax loolu rek su amee seen classement bi dana gën a avance gis nañ ne ba nga nekkee ministère de l' enseignement supérieur jamono jooju comme li nga wax ñu jéem a wàññi luy ndax eh, eh, li mu étudiant yuy eh, ñëw ICAT gisoon nañ ne commencé woon nga lool ñu jékki-jékki jëlee la ci bopp ministère bi souvent lan mooy indi problème yu mel noonu. waaw xam nga nomination ministre moom président moo ko moom. sañ-sañam la ku ko neex mu nommé la ministre. Mhm. donc loolu moom kenn amul dara loo cay wax. Mhm. li nga mun a wax mooy. continuité des politiques publiques ndax politique bi ñu tëraloon dafa jóge ci lël bu mag bu amoon muy concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur te dañu jóge ci loolu ñun ñu liggéey ci budget bi war a doxal mbir mi ba ñu xalaat ni ci fukki at mun nañu soppi doxalinu université yi ak enseignement supérieur ak gëstu bi ci Sénégal ci la ñu taxawal président présider ko mooy conseil euh, présidentiel. Mhm. sur l' enseignement supérieur d'ailleurs boobu rek moo mus a am d'ailleurs depuis mhm. indépendance ak léegi. Mhm. Euh, président jël décision euh, onze décision onze décisions yooyu ñun ci la ñu doon liggéey. ci loolu la ñu décidé woon ni li mu on avait trouvé cent mille étudiants. dañ koy wàññi graduellement. pour ñu àgg soixante mille étudiants en deux mille vingt deux. ci la ñu aussi décidé woon yaatal université yi ci lañu ñu décidé woon aussi changer affaire yu bare ñu ngi woon ci yoon boobu mais nag defe naa dañu ñëw ba benn jamono nguur gi peut-être décidé ni leneen lay def mhm. mais loolu du bii rek du guleet mhm. cest mhm. ci politique yu bare yooyu gis nguur nguuru Sénégal di ko def day tàmbali bi ñëpp nii ah léegi de tàmbali nañu gis bunt bi rek mu bàyyi ko mu bàyyi ko def leneen parce que mun nga changer ministre. mais du tax euh, nga. nga changer système nga politique bi ah. continuer. Mhm. réew yu mag yëpp noonu la ñuy defee. ministre dañuy changer. Mhm. mais politique bi kon loolu tax tubaab di wax continuité de l' état. Mhm. de l' tey ñu ngi waajal école préparatoire ngir euh, te xëy na ñu gën a xarañ ci Sénégal ci école yu mag yu mel noonu école préparatoire bu Sénégal Macky Sall ñu ngi koy xaar Thiès jeudi euh, lan moo ci xalaatu Mary Teuw ñaan est-ce que gaawtuwuñ loolu ci école préparatoire waaw man ndax booy xool dafa am leen li ko waraloon mooy tey ñoo xaman jóge nañ fii dem extérieur ay problème dal leen ba am na ñoo xam ne dañu fëggee woon kenn gisatu leen woon quelque temps après ay problème am donc est-ce que du loolu tey moo poussé gouvernement bu Sénégal tey pour mu taxawal waaw loolu nga wax loolu exception la parce que day loo xam ni man sama bopp dund naa ko parce que classe préparatoire laa def mhm. ñaareel bi aussi bu ma nekkee ministre dafa nekk dossier boo xam ni suivre naa ko bu baax a baax donc euh, cas boobu nga wax vraiment exception la ci ñi doon dem classe préparatoire donc euh, defe naa ni mënul tax nguur jël décision man sax bu ma nekkee ministre de tàmbali woon naa ko mais dafa amoon lu ma kale parce que ñun bu ma nekkee ministre boobu jamono lycée scientifique d'excellence amagul mhm. xalaatoon nañu ko def ko mais ñun suñu xel dafa ñu mayoon ñu def ko ci Prytanée militaire ñu def ci ay jéego bu ñu demee ba mu des rek avancé jël décision ñu waxtaan ak waa waa foofu waa armée bi fa nekk ñu ne ñoom mënuñu jël jigéen loolu nag ñun mënuñu def classe préparatoire te xale yi daq jàng jigéen ak góor la nga ni mhm. da ngay seppi jigéen ñi du ñu bokk donc man leen loolu mënul nekk ci la ñu tam xam lu ñun donc mhm. mbégte laa am ñu war a démarrer classe préparatoire mhm. donc loolu mbégte la parce que am na réew déjà ci Afrique yu ko am. muy Tunisie am na ko ëpp na léegi peut-être sax dem na fanweeri at. Maroc moom ëpp na juróom fukki at bu mu ko amee léegi Mauritanie gi tàmbali na ko war na am léegi ñaar ñetti at ñeenti at ba seen benn première promotion parce que classe préparatoire ñaari at la. première deuxième année bi ngay def concours école yi. Mauritanie bu ñu defee. bu ñu àggee ci ñaareelu at bi ñu def concours yi am nañu ñeent yu admis école polytechnique bu Paris donc am nañu résultat bu mag man nag foofu rek lay ñaax ñi nga xam ni tey ñoom la ñu dénk classe préparatoire yooyu parce que dañu war a fexe surtout jàngalekat yi parce que étudiants yi awma ci problème parce que suñu étudiant am nañu niveau ndax dañu fay jóge dem classe préparatoire admis donc c'est pas un problème problème bi mooy jàngalekat yi jàngalekat classe préparatoire est-ce les moyens qu'il faut nañ ko ci def. loolu visité wu ma école bi. Ah. donc xaw ma exactement nan la taxawee. Ah. wante yaakaar naa. sooy teg classe préparatoire war nga jël motukaay yépp yépp yépp parce que da ngay moytu lenn xam nga ñi am xaalis. ñi seen papa am xaalis mbaa ñi seen papa suñu amul xaalis mun nañu leb sooy teg classe préparatoire yu mel na suñu réew yii su seen xel dalul dañu jël seen doom yóbbu bitim réew nguur mun ci dara te bon ñiy des ci classe préparatoire mooy ñi nga xam ni seen papa ak seen yaay yi seen loxo yi jotul donc toujours dañu war a def attention ci loolu te li ñuy teg moo tax ma ni jàngalekat yi dafa am solo ñu wut ay jàngalekat yoo xam ni tàmm nañu jàngale ci classe préparatoire jàngalekat yooyu nag amaguñu ko Sénégal muy ñi jàngale ci suñu lycée yi muy professeur université yi ni ñu leen bindee du noonu la ñuy jàngalee classe préparatoire ay professeur agrégé yoo xam ni dañu leen tàggat ci loolu ñooy jàngal classe préparatoire loolu mooy li jëkkali ak ci matière yépp nag amul benn matière booy soofantal parce que soo ko soofantalee rek xale bi su defee concours bi su su moytul mu am ci problème beneen bi mooy équipement yëpp mat na laboratoire yi mat na équipement yëpp mat mhm. beneen bi xale yi na fekk benn mbir la ñu am mooy jàng mhm. classe préparatoire amul leneen jàng kese mhm. beneen bi mooy ñu fexe ba déwén ñu commencé ndoo exactement ak France waxtu bi muy commencé parce que France premier ou deux septembre la ñuy tàmbali fii aussi war nañu premier ou deux septembre xale yi tàmbali comme fële loolu aussi dafa am solo trop man damay fàttaliku année bi ma dem classe préparatoire c'était en mhm. soixante quinze dañu tardé quinze jours bu ñu tardé quinze jours mais bu ñu ñëwee ay kay cours bu nekk kay bi fees na dell. dell fees dell il fallait rattraper ça. am na ci ñun ñoo xam ne c'était des brillants élèves. mais loolu moo yàq seen seen première année. Ah. seen première année donc tardement bi aussi. Euh, classe préparatoire amul tardement. parce que professeurs yeeg yépp lenn rek mooy seen gis-gis. ñaareelu at bi au mois d'avril c'est les concours te concours yi ràññeewuñu fii nga bëgg jóge mbaa fee nga jóge. ku mën sa morom duma c'est c'est euh, ci dernier point bi ci côté éducation tey euh, gis nañ wax nañu ci wàllum université yee classe préparatoire ñu ñëw si jàng bu gën a diggu doom bi lu toll ni lycée yi CM yeeg primaire yi gis nañ ne chaque année les mêmes problèmes recommence ñu commencé jàng trois mois quatre grève tàmbali quatre mois cinq ba léegi da ngay ràññee ni sax gis ne même niveau élèves yi dafa wàcc tey lan moo ñu yóbbu si situation boobu noonu waaw defe naa ni am na lu bari am na loo xam ne moom euh, Serigne Mbaye Thiam sax bu mu nekkee ministre éducation nationale. Mhm. tàmbali woon na ko soññ. Mhm. mooy li ñuy démarrer en octobre. loolu defe naa war nañ ci xalaat bu baax. parce que dafa am décalage ñun ak réew yu bare ci Afrique ak ci àdduna si. Mhm. réew yu bare ci Afrique ak ci àdduna si. septembre la ñuy tàmbali. ñun octobre la ñuy tàmbali defe naa ni loolu jàngalekat yi ak ñiy wax yépp société civile comme ko si dep ak yooyu mhm. ñoom ñëpp ñëpp war nañ ci xalaat loolu benn ñaareel bi moo di euh, programme yi mhm. at moo àggalul programme mhm. xale bi su demee at mi ci topp su moytuwul dangay yokk jafe-jafeem surtout nag ci domaine bu mel na sama bos muy mathématique parce que mathématique da ngay donn li nga jàng ci at mu wees bi hmm. soo ñëwee ci at mi ci topp li nga jàng mokkul woon waa ji mënul dellu si ci loolu hmm, hmm. donc day tax at mu ñu dem rek ñi bëgg mathématique dañuy wàññeeku te dañ ko gis sax ci résultat yi parce que euh, ren euh, plutôt daaw en juillet soo gisee soo jëlee téeméeri élèves yu candidat baccalauréat fukk ak juróom ñett rek ñoo candidaté ci série scientifique yi muy loo xam ni defe naa ni suñu yeewu woon tuuti mhm. danañu xam ni loraange bu mag la ci ëllëgu réew mhm. ci ëllëgu réew beneen bi mooy xam nga grève yu bare syndicat ak nguur lan moo ko indi mhm. nguur day signé ba pare te li mu signé du ko respecté nguur dafa war ni bala may signé ma ma mu wóor ma ni li may signé waxtu bi ma ko wax su ñëwee danaa ko def. bon président ba mu ñëwee loolu la njëkkoon wax du ñu signé loo xamante ne mënuñu ko accepté. mais bare na nag lu mu signé. xam nga daaw am na fi grève bu fi am. Mhm. ñuy werante ñaata la yu kenn xamul. ba mujj. Euh, ba ñu mujjee séddee. ba enseignant parce que effectivement loolu la woon. Mhm. parce que syndicat bi moom looy wax ak moom. na la wóor parce que moom loolooy rôle am jàppale ñii nekk ci syndicat bi su dee yow yaay nguur yaa xam loo mën ak loo mënul donc loolu dafa am solo defe naa ni suñu dellu siyaatee ci loolu beneen bi aussi mooy muñalante dafa am parce que war na ñu bala ñuy dem grève ak yooyu aussi waxtaan mais xam nga législation du travail dafa teg loo xam ni war na mun yombal nguur di waxtaan mooy préavis de grève uh-huh. parce que euh, syndicat bala muy dem grève day def préavis uh-huh. au mooy am na weer su déposé préavis defe naa waxtaan war na mun tàmbali uh-huh. loolu dafa am solo tamit wante man li ëpp solo tey ci éducation bi su ma koy wax mooy dañu war a xoolaat suñu bopp parce que ñu ngi ren juróom benni at yu teg ñaari at bu ñu jëlee indépendance ak léegi ndax tey suñu jàngale bi méngoo ak li réew mi bëgg ak méngoo na ak doxalinu réew mi ndax kat ñun li ñu toog fii yëpp depuis mu dugg fii bi xam naa ni bala may génn lan la ñuy lakk wolof suñu lakk mhm. la ñuy lakk mhm. fii su ma fi toogoon suñu su tàkkusaan jotee ku nekk dana jël sa sajaada dem julli ji mhm. yenn saa yi ngeen woy wala ngeen fecc wala ngeen def suñu culture or ñetti mbir yooyu amu ci benn boo xam ni mu ngi ci suñu école ecole boo xam ni yow gisoo ci sa bopp lépp looy def sa kër sa kër nga ko bàyyi nga dem école bi moo di école bi nga xam ni moom mooy tabax sa ëllëg dafa xeeb li nga nekk mhm. bon école bi est-ce que mun na soppi réew mhm. munul soppi réew te gis nañu ko parce que xale yi xale yi léegi déggatuñu tubaab. jàngalekat yi sax ñu bari déggatuñu tubaab. waxuma nag gouvernement bi waxuma sax ci yéen nit seen presse beeg yëpp ñu bari déggatuñu tubaab xam nga lu tax parce que ñun dundatuñu tubaab. dundatuñu tubaab te loolu dafa am problème bu mag ci matière bu mel na mathématique. xam nga mathématique. pour nga jàng ko il faut nga dégg làkk bi ñu la koy jàngal. Mhm. soo déggul làkk boobu munoo fexe fexe ba nga am niveau bu kawe ci mathématique hmm. bokk na ci li nga xam ni dafa daaneel mathématique ci suñu jàng yi hmm. donc pour man nañu nañu xalaataat suñu école yi hmm. dugal suñu làkk yi réewu jullit lañu réewu diine lañu soo jëlee téeméeri sénégalais quatre-vingt-quinze yi jullit lañu cinq pour cent yi chrétien lañu nañu jàngal jullit yi alxuraan ak seen diine ak lan la diine bëgg ak lan la tere ah, chrétien yi nañ leen jàngal seen catéchisme ñoom it seen mm-hmm. diine lu mu bëgg ak lu mu tere ensuite ñu ñu jàngale suñu culture bi mm-hmm. ensuite ñu ñu jàngale science ak technologie mm-hmm. science ak technologie ñu def ko ci suñu lakk après nag ñu dabu français bi dabu anglais bi parce que dañ ciy boole anglais parce que anglais mooy tey lakku àdduna lépp luy xam-xam ci àdduna anglais la ñu dabbu anglais bi. Ah, defe na ñu avancé tuuti ndax point yooyu foog naa ne leer na. Mhm. Euh, ñu daaneele ci euh, côté boobu noonu rek mooy juste mooy euh, Sénégal képp ku fi doon étudiant xel mi yëpp dafay nekk ut préinscription pour dem Europe gis nañ ne lu mel ni les ambassades la dañuy bloqué passeport gars yi presque ba mu yàgg torop sax ba fan yi gis nga coow lu ci am yëpp ba ñu ci mel ne ñoom Guy sa Sagna def nañ ay manifestation ba dem déposer ay lettre de protestation mais ba léegi dégguñu gouvernement du Sénégal wax ci lu mel noonu. waaw gouvernement bi war na parce que ay njabootam la sa njaboot la c'est-à-dire que ñaari mbir defe naa moo ci war a am benn bi. mooy rôle gouvernement Sénégal du fexe xale yi dem bitim réew. rôle am mooy fexe liggéey ci université yi fi nekk. daara yi fi nekk de même que ay enseignement privé bi. bi ñu ràññee leen bi xale yi mën a toog. ku bëgg a dem nag gouvernement bi aussi war na fexe ñu ñu ñu ñu gérer la lu méngoo ak sa yelleef parce que ambassade yi seen réew la ñu fi nekkal du gouvernement bi mooy joxe visa de sortie mais gouvernement bi war na inquiété wu su fekkee ni affaire dafa am tolof tolof et surtout que am na ay ambassades yu bare léegi dafa mel na rek commerce Uh-huh. parce que dañu laaj xale yi xaalis bu bari. commerce kay la gën a dañu laaj xaalis bu bari. Mm-hmm. et puis war nañu la wax. soo déposé war nañu la wax ci lu gën a gaaw. Mm-hmm. ndax nangu nañu nga dem walla demuñu seen réew la mais nañu la wax mais pourquoi ñuy téye sa passeport. Mm-hmm. donc loolu. Uh-huh. Mary Teuw Niane professeur euh, nekkoon na PCA Petrosen Sénégal moom bu ñu ne Petrosen rek xel yëpp ci pétrole ak gaz lay dem te. daanaka xaw na jaxase xel yi ci par rapport ak euh, contrat yi ndax am na récemment ñu fi génn ne contrat yi Sénégal 10 pour cent lay am comme part te comme nekkoon nga DG Petrosen ñu bëggoon nga indi ay leeral ci lu mel noonu. nekkoon na président conseil d'administration. Mhm. du de 6 mai 2020. Mhm. au 25 juillet 2022. Mhm. donc euh, pratiquement ñaari at ak euh, ñetti weer ou ñeenti weer. mbiru contrat yi defe naa ni euh, avantage la pour Petrosen mais du rek pour Petrosen pour aussi ministère du pétrole et des énergies ak tamit cos Pétrogaz parce que ñooñ ñëpp dañu ci am wàll que ñu gën ko leeral askan bi ngir juumte bañ ci génn parce que soo déggee rek nit ñi di wax da ngay gis ni juumte bare na parce que da ngay dégg rek ñu ne la pétrole ak gaz bi Sénégal 10 pour cent la ci am loolu njuumte bu mag la parce que su ñuy dem di wuti contrat bi suñ ko signé kiy wuti xam na ni su su amee pétrole ak gaz Petrosen mi nga xam ne mooy société bu état du Sénégal am na ci au minimum 10 pour cent kooku njalbeen la mhm. su ko neexee suñu tàmbalee Mm-hmm. ñu trouvé mm-hmm. parce que suñu trouvé wul ki doon wut dugal ci alalam day mm-hmm. ñàkk alal day perte uh-huh. mais suñu wutee suñu amee uh-huh. ki doon wut moom de de de de Petrosen am na déjà dix pour cent uh-huh. Petrosen dañ koy may mun na yéeg ba vingt pour cent loolu la Petrosen def ci Woodside mooy Sangomar Sangomar bu ñu amee pétrole te danañu j'espère feeg juillet ñu tàmbali wëgg pétrole bi. léegi Petrosen pratiquement dix huit à vingt pour cent la am. loolu benn wàll bi la mooy groupement bi nga xam ni mooy exploiter pétrole bi. léegi pétrole boobu ñu génnee ci suuf si. pétrole boobu su ñu génnee ni supposons ñu ne téeméeri barigo génn na. dañuy jël ci saa si fanweer ba ba mun na dem ba juróom fukki barigo. ñu ni état du Sénégal yow yaa moom lii. xam loolu bokkul ak dix pour cent yi. Mhm. ñu ne état du Sénégal yaa moom lii. Uh-huh. loolu moo tax contrat bi tudd contrat de partage. Uh-huh. looloo ko indi. loolu nag ñu bare du ñu natt loolu. dix pour cent yëlay Petrosen moom. Mhm. ci njalbeen ci loolu rek la ñuy wax. ce qui fait li ëpp doole liy dugg ci gafaka Sénégal. Mhm. ñoom gisuñu ko mooy loolu. te loolu mu ngi dépendre ci production bi nu production bi tollu rek wàllu Sénégal ci loolu yokk looloo tax ñu ñu mun a wax ni suñu produire pétrole essence bi na wàññeeku mhm. parce que ci loolu Sénégal moom nga xam ni dërëmam dugg ci mhm. ci loolu Sénégal su ko neexee mu jaayee ko lu ko neex saar mu jaayee ko lu ko neex saar mhm. su ko saar raffiné après saar saar mun na ko jaay ci uh-huh. lu mel noonu d'ailleurs Nigéria amoon na jamono Nigéria mm-hmm. doon nañu jaay pétrole ak gaz pétrole mm-hmm. mais prix bi mu ñu koy jaayee moo gën a suufe prix international bi mm-hmm. lu taxoon Nigéria mënuñu jaay yooyu mooy wallam bi mu am en tant que état ci uh-huh. loolu lay dindi jaay parce que wàll boobu euh, amu ci benn jënd dépensé wu ci dara donc loolu lay kii Sénégal tamit société bi nga xam ni moom moo investir. be trouver pétrole. tamit su ñuy exploiter société boobu li mu ci dugaloo dañ ko koy delloo. defe naa ni loolu aussi xel war na ko mun a xam. nangu na ko su fekkee ni su amul da koy ñàkk mais au moins su amee li mu ci dugal ñu delloo ko ko. Ah, ndax moo jël risque. moo jël risque boobu sinon doo am ku la ko defal. doo am ku la ko defal. loolu loolu defe naa ne leer na. ndax euh, parfois dañuy wax ne boo bëggee mbir leer ci sujet boo xamante da ngay laaj ñu ko xam. Mhm. te yaakaar naa li nga wax leer na nañ. Mhm. def naa bañ démarrer rek léegi ñu ngi wax des questions techniques questions techniques mhm. mais d'habitude dañuy wax ne Sénégal troisième mandat mooy source de polémique ndax bu ñuy wax ne pétrole bi war na génn deux mille vingt trois deux mille vingt quatre ñu waroon dem élection présidentielle 2024 xamaguñu ba xam président Macky Sall day bokkam du bokk waaye li ñuy jàpp mooy li mu waxoon du bokk. ñu bëggoon xam position professeur ba xam changé na ci diggante wala changé wul. déet ñun suñu position du changé. parce que dañu gëm ni. kor ca wax ja. ndax euh, mbiru troisième mandat bi bu ñu ko xeexee yàgg na. gis nga janvier 2009. maa ngi nekkoon recteur université Gaston Berger. dama bind président Wade lettre. ni ko élection locale yi ñu jëm ci ñaari weer yi nar ñëw soo moytuwul dëkk yu mag yi dañ koy perte ñaareel bi 2012 lettre bi amoon na réponse wala dafa ma wowoon recevoir la ak ñeneen waxtaan ak man dégg nga te du woon boobu rek ça la bindante woon ak président Wade mhm. mais boobu moo gën a fës ci li ñuy wax nii ci yu dégg nga Euh, ma ni ko 2012 bul présenté wu. Mhm. ndax yow li nga représenté ci Sénégal dafa rëy. Mhm. ndax yaay la premier opposant mhm. bu ñëw au pouvoir. yow tamit eh, eh, mag nga te eh, dañ dañu bëgg nga nekk ku ñu ràññee ci Afrique yëpp. annoncel Sénégal yëpp doo présenté wu. nga woo ñëpp boole leen ñu nekk sa njaboot. nga organiser gouvernement bi bi ngeen dem élection ku falu après yow nga génn génn sa loxo ca kaw uh-huh. après nga dissoudre Sénat bi uh-huh. loolu laa ko bindoon uh-huh. malheureusement jëlul boobu décision mais ku respecter démocratie la ndax j'étais recteur janvier 2009 laa ko bind deux mille 2010 bu ñuy def vingtième anniversaire UGB moom moo ñëw présider ko. ak bi bu mu fi jógee j'étais recteur de l'UGB. mu noon ni bind naa loolu jox ko ko donc war naa fi jóge. Euh, su ma rappeler loolu. c'est que sama position ci troisième mandat. dafa yàgg. fii tamit président deux Sall 2012 déjà. da doon xeex contre lu troisième mandat troisième mandat. référendum bi 2016 rappelé na encore mhm. mbiru mm troisième mandat du am mm -hmm. élection législative 2017 rappelé na ko mhm. bind na téere wax ko ci aussi conclusion bi loolu la wax décembre 31 je pense bien que c'est 31 décembre 2018 mhm. sur ci radio télévision sénégalaise wax na ñépp que mandat bi muy laaj mooy mujjantelu mandaam donc mbir mi te ñëpp xam nañ ñun régime présidentiel la ñu am donc élection diggante nit ak askanam donc engagement bi président Macky Sall jël ak askanam moo di février 2024 du nekk candidat ñun ci loolu lañ koy ñaax na na ko gaaw a wax askan bi mhm. li mu waxoon parce que yaakaar nañu ni mhm. africain la xam na ni ci ñun Afrique kaddu moo ëpp doole bind européens yi bind moo ëpp doole kaddu yaakaar nañu tamit moom jaar-jaaram ak yarinam yépp suñu culture africaine mu ngi ci moom donc problème bi mooy tey su teelee wax dana dalal xelu ñépp ñaareel bi su teelee wax ci wàllam ñi bëgg nekk candidat dañuy ñu nekk candidat Mm-hmm. ñetteel bi mooy su ko teelee wax dana mun a wax opposition majorité société civile ñëw leen ñu toog waxtaan. Mm-hmm. ñu diisoo ngir février deux mille vingt quatre ñu mun a dowal réew mi ba foofu te du am benn jafe-jafe ñépp a ànd ci. Mm-hmm. mu organiser élection yi bu mu bokkul ki ñu fal ñu fal ko. c'est vrai que rappel bi nga jël euh, ak fi nga tàmbalee am na solo mais boo gisee wax ji à chaque fois muy ñëwaat dañuy gis euh, ñoo xamante ne ñoom ñoo bokk ci euh, APR wala bokk ci Benno Bokk Yaakaar fan yi dañu mel na ñu agité wu ñu si mel ne ñoom Racine Talla ak ñeneen ak ñeneen ba la dernière fois gis nañ doxantu Macky Sall ba mu def hmm. presque waaye ci ñoom Aliou Dia génn chef de cabinet Racine Talla ba naan ko troisième mandat demande sociale la waaw xam naa ko sax benn papier ma tuddee ko les laudateurs gis ngeen am na ku jóge ci pale tontu yàggul bind naa ci deuxième vague bi parce que ñooñu première vague la deuxième vague bi ñëw na mooy ñi ñi nga tudd léegi te yaakaar naa ni du yàgg troisième vague bi ñëw dina ñëw parce que ministre yi ñi plein yi waxaguñu ñoom lay wax troisième vague bi loolu ci mel ne ay ñoom Mame Mbaye def nañ sorti ñoom dañu valider troisième mandat bi. non Mbaye Mame Mbaye déglu naa ko. Mhm. Mame ñaa ci li ma ko déglu. Mhm. prononcé wul ci troisième mandat. Mhm. déglu naa ko ci émission. ndax ku nekk dañ koy waxal. mais da leen di. waaw dégg à chaque fois dañ naan bu dee président Macky loolu la bëgg dañ ko ciy soutenir. man en tout cas li ma ko déglu. Euh, peut-être euh, am na lu ma déggul. maintenant euh, li am solo mooy. yoon bu ñu munti jaar. Mhm. lenn rekk moo moo fi am mhm. c'est la question éthique et morale mhm. ndax moo ko waxoon ñëpp moo taxaw ci kanamu ñëpp kenn forcé wu ko kenn forcé ko dem na sax ba méngale ñaari ñaari mandat yi ak kàbbaru julli it xam nga loolu dafa dafa dafa doy waar dem bi méngale premier mandat bi mooy rakkaa bu njëkk bi juróom-ñaari kàbbar ñaareelu mandat bi mooy eh, ñaareelu rakka bi juróomi kabbar moom ci mhm. boppam dem na bi wax yooyu te ci biir wax dafa ne bu dee imaam dafa bañ a sëlmal ngeen fekk ko fa donc mhm. donc ku wax loolu mhm. defe naa ni dana doy waar trop nga dellu si si ñi nga ko waxoon nga bugg leen wax leneen moo tax man de ci li ma jàpp ci li ma yaakaar ci li ma yaakaar président dana peut-être dana yéex mais dana mhm. taxaw suñu kanam mhm. ni ñu février 2024 du ma nekk candidat parce que gisuma leneen lu mu ñu mun a wax lu dul mhm. loolu par rapport ak li mu waxoon ah nañu yaakaar ne xëy na nañ fa àgg ndax ñu mel ni ay mouvement mm. yaana maax fan yi ñu ngi jóg naan bul jéem sax seen slogan ah, bu bees wax nañu dégg wax nañu dëgg ah. nañu dëgg na ñëpp ñaax parce que ñaax baax na mm-hmm. fàttali baax na mm-hmm. réew mi amoon na li fi xewoon muy jamono mars bale ñu génnoon mooy affaire Ousmane Sonko ak euh, aji Sarr Ousmane Sonko nekk benn opposant peut-être mooy opposant bu gën a radical tey ci réew mi xëy na moom mooy adversaire principal lu président Macky Sall mais à chaque fois dañuy dégg ne procès dina ñëw te Ousmane Sonko soo moytul nawul bokk ci élection yi. man de li li sama xalaat parce que ñun démocratie. démocratie li koy suuxat mooy ñëpp ñi nga xam ni ay sénégalais yi gëm nañu leen. ak ñi nga xam ni sax dañu yaakaar ni gëmuñu leen. te ñoom seen bopp xalaat nañu ni sénégalais yi gëm nañu leen. ñu may leen ñu laaj xobu sénégalais yi. parce que kenn mooy àtte. mooy le peuple sénégalais. looloy démocratie. donc bugguma en aucune façon. ak ku mu munti doon. ñu tere la nga nekk candidat aux élections nañu bàyyi réew mi askan bi àtte décider kan la bëgg nekk mu nekk mu nekk président de la république xam xam nga tey askan wi bu ñu amee jaaxle di xalaat loolu c'est parce que dafa am ñu fi jaaroon mhm. ku ci mel ne tey Khalifa Sall ak euh, Karim Wade ba récemment ñu ngi agité même amnistie pour ñoom ñaar te loolu yëpp pour euh, xëy na peut néewal doole Ousmane Sonko moo waral lool lépp. waaw xam nga man moom duma dugg ci analyse li may dugg tey mooy situation objectif bi. Mhm. xam nga si juillet bi. Mhm. dafa ñu indi loo xam ni ñëpp ci teg seen bët. Mhm. dem nañu élection législative. majorité bi. musul xalaat ni dana daanu daanu bi ak fi mu daanoo. opposition bi aussi. musul xalaat ni dana am li mu am ba tey ñoom ñaar ñoo tolloo mais ñoom ñaar ñoo ñëpp soo leen boole nga lim ñi leen votel moo gën a néew ñi nga xam ni toog nañu seen kër voté ji loolu mooy classe politique bi tey askan bi néewal na leen doole soo jëlee majorité bi ñu ngi représenté benn sénégalais ci ñeenti électeur mhm. soo jëlee opposition bi benn sénégalais ci ñeenti électeur la ñuy représenté mhm. donc tey nekkuñu kàddu askan bi mhm. loolu moo war a tax may wax toujours suñu résultat 31 juillet bi lan la woote dafa woote nit ñi toog waxtaan te kan moo war a woote waxtaan bi ki ko yellool ki nga xam ne am na kaddu gi ak autorité bi mooy président de la république mais munu ko def tant que amul légitimité bi li koy may légitimité bi mooy mu ni nit ñi kàddoom bi mu waxoon dañu ci mooy il ne se présente pas en 2024 muy amnistique yooyu yëpp ci dialogue lañu ko mun a régler ndax su woote woon su waxoon li mu li mu war a wax mhm. woote nit ñi mais tout le monde day obligé ñëw wuyu si ko. donc rupture de confiance moom moo waaw il faut que nit ñi wuyu si ko à ce moment là mbiru amnistie yeeg mbiru yooyu yëpp ci la mun a réglé wu. Uh-huh. dans l' intérêt du Sénégal. Uh-huh. espérons que président Macky dina dégg sa kàddu yooyu ndax uh, am na solo. ñu bëggoon xam président professeur Mary Teuw Niane sera-t-il en deux mille vingt quatre oui ou non. man nekkuma ci course boobu. Uh-huh. xam nga ban course laa nekk tey mooy am. problème bu mag gis ni suñu réew waxtaanee problème yu magu réew mi problème yu mag ci réew mi dafa jafe tey nit ñi seen waxtaan yépp xiiroo ŋaayoo la ak wax yu ñaaw walla ay tumante dëmm ak yooyu mooy tey waxtaan bi or warul nekk loolu tey ñu ngi nii génn ci nawet nawet boo xam ne yàlla may nañu taw te ñëpp ñu ngi reconnaître ni su moytuwul mbéy mi du demee noonu parce que manqué na engrais parce que semence yi taxul nekk semence yu baax ak yu mel noonu suñu agriculture keroog am na lël bu fi am ñu ngi tàmbaliyaat di wax consommer locale parce que crise Ukraine bi ak Russie bi tax na ba am na ñam yu ñu doon jëndee bitim réew léegi dafa ñuy jafe mais nan lañuy def ba ceeb bi dugub bi màkk bi ak yeneen yu ñuy jënd bitim réew ñu mun ko béy fii nan lañ koy defee loolu problème la loolu lañu ñu war a waxtaanee te du waxtaanu nii marché ay technicien ak ñi koy liggéey ñoo ko war a waxtaanee ndox mi xam nañ ne am na solo ci mbéy ndax su fekkoon ni bawol gii fu nekk am nga ndox jamono bu nekk mais nit ki dana bay at mi lëmm mais ndox mi amu fa am nañu ay milliards mètres cubes yuy dem ci géej bi at bu nekk ñu koy perte nan la ñuy def bi dugal ko ci biir suuf si bi ñu jot ci am nañu ndox ci biir suuf nan la def ba jot ci am nañu pétrole ak gaz pétrole ak gaz mun nañu may ñu soppi loolu ndax danañu may ñu tabax usine pétrochimie suñu tabaxee usine pétrochimie di nga mun tab euh, defar engrais ay urée yooyu ci pétrochimie nga koy defaree. Mm-hmm. mun nga defar aussi ay tuyaux mm-hmm. pour indi ndox tuyaux goutte à goutte yi aussi mun nga ko def mm-hmm. mbaar yi ñuy bey ci Europe serre yi toile bi ci nekk pétrochimie moo la koy jox donc suñu xalaatee ci yooyu ak yeneen ak yeneen ak yeneen pàcc bu nekk ñu ciy xalaat waxtaan ci ñun loolu lañu bugg bëgg delloo si ñuy waxtaan loo xam ni intérêt Sénégal la. li nga wax c'est moo am solo ba nga xamante ne ne est-ce que tey du xam-xam boobu moom la sénégalais tey soxla seen koo xamante ne mooy nekk seen président. waaw suñu demee parce que dara yàkkamtiwul. xam nga yàlla moom dafa yombal mbir yi. ndax dafa ni ñun jullit lañu. dafa ni mhm. Mhm. njiit. Mhm. nguur. man may tànn ku ma neex ma jox donc ku ku nekk da ngay sabablu. wante ñun tey nañu fexe. bi xelu Sénégalais yi. Mhm. jóge ci coow yu ñakk maanaa yooyu. Mhm. coow yoo xam ne day yàq lu ëpp diggante. Mhm. ñu jublu ci xalaat yooyu. fexe ba suñu borom xam-xam yi indi xam-xam ci ëttu politique bi. ñu sey waxtaanee. suñu demee nag ba ay juin yooyu. ay juin yooyu mbir mi jege danañu mun a xalaat ban position la ñuy am. lañ cey am lañ cey am. mais léegi pour man teel na. sa rapprochement ak euh, Ousmane Sonko euh, gars yi ñu ngi laam-laamee ak euh, Mary Teuw 2024 Ousmane Sonko la nar jàppale. man wax naa la léegi. jëlagu jëlaguma position. man nekkuma opposition nekkuma pouvoir. Uh-huh. ñun Sénégal la ñu àndal. Sénégal la ñu àndal. ñu terminer si euh, deux dernières questions yi euh, di rappele mbokk internet du ñuy seetaan Sénégal yéen a ngi seen émission nay leer ñuy dalal professeur Mary Teuw Niane di professeur mathématique aussi euh, gisoon nañ ne jamono jëlee passé amoon na lu xewoon Ziguinchor ci wàllum oto ICG yi ñu waxoon couleur Pastef moom moo ci nekk ba nga defoon ci benn post mais après gis nañ grandeur bu nga ci def retiré post bi jéggalu. mais après ay attaques da ci amoon. waaw mais kooku ñun jàngalekat lañu. Mhm. xam nga jàngalekat souvent dañu may wax mais yow pourquoi nga continuer di bind ci Facebook. Mhm. man leen déet ndax suñu bàyyee suñu jeunes yi. Mhm. ñu leen di yóbbaale ci ay saaga yu mel noonu. su moytuwul safaan bi réew mi yëpp mooy yàqu. or ñun ñi nekk jàngalekat dañu leen war a won ni. yar ak teggin. loolu mooy aada réew mi dañ leen war a won tamit xale soo ci nekkee yàlla jàppale la war nga jàng sa diine war nga aussi wut xam-xam wut mën-mën loolu mooy waaw góor wu xale donc ci yooyu laa nekk di di leen ñaax ye defe naa ni yenn saa yi am ku koo xam ni mais yaru di ko foppe la am ku ku am ku posé acte yu mel noonu mais dama ci xool dama lay bloquer rek sànni la fële. Mhm. dernière question mooy wàllum réseaux sociaux yi gis nañ nekk na xëy na peut-être indiscipline bu gën a sonnal tey nit ñi mooy li jëm ci wàllum réseaux sociaux yi façon problème bu ne am na ci audio yi fii saaga yi fii ba la dernière fois président Macky Sall mu ngi ciy waxaat ba fan yi sax am na ñu bari ñoo am ñu ngi leen di jàpp ci lool lan moo ci position professeur. réseaux sociaux yi numérique de manière générale. xam nga ni man suñuy wax numérique ci Sénégal. bokk naa ci ñi ko gën a fulal fulal. Mhm, mhm. dem naa ba man maa taxawal université virtuelle du Sénégal. donc fulal naa bu baax. ak numérique bi ni mu duggee ci université bi. Mhm. jamono bi ma fa nekkee la lañ ko dugalee noonu. te am na gëstu yu may bare yu bare yu may def ci loolu laa koy def. donc numérique am na solo trop. mais dañu ko war a jox nag place am. espace numérique yi pour réew yu mel na suñu réew damay wax ni opportunité la pour développer formation bi ci xale yi lieu de formation la soo demee sama page Facebook formation lay def yee xale yi won leen démb nu ñu doon defee won leen sax yenn jaar-jaar yi pour ñu jàng ci maintenant nag su fekkee ni nit daf ko bëgg jëfandikoo pour toroxal nit pour sosal nit mais yoon am na fi kooku yoon yoon am na fi maintenant nag bu ñu jéem benn yoon jëfandikoo ko pour tere nit wax kàddoom su fekkee kàddu bu jaar yoon la mooy ànduma nguur kooku droit la mooma ki kii wax ànd naa nguur ñoo yem droit mhm. suñu wut aussi di tere kàddu yu ñaaw nañu ko tere ci ñi nekk ci nguur gi mhm. tere ko aussi ñi nekk ci opposition bi mhm. mais tere ko ñi nekk ci opposition bàyyi ñi nekk ci nguur gi di wax lu leen neex aussi loolu aussi kenn du ko nangu parce que Sénégal moom du nangu mukk mhm. ñuy ñuy tuuteel ou ñuy wàññi doole kenn mhm. bàyyi keneen ki kumba am ndey kumba amul ndey loolu dafa war a deñ ci Sénégal su ñu décider daal enrayer ko lépp lu ñaaw ci réseaux sociaux yi nañu ko teg ñëpp nañ ko teg ñëpp professeur euh, hmm. loolu la ñu amoon ci waxtu daanaka hmm. jeex nañ ñu ngi lay bàyyi nga tàggu mbokk internet sénégo yi. Euh, euh, Thierno malit Ndiaye maa ngi lay gërëm di la sant ci laaj yi nga laaj yu am solo macha allah di gërëm di sant auditrices yi ak auditeurs yi janook ñun di di leen jéggalu su fekkee am na loo xam ni neexu leen ci wax bi kooku man la su amee lu baax tamit ñu xam ni borom bi moo ko soob. Euh, jërëjëf professeur euh, Mary Teuw Niane yaakaar naa ne waxtaan gi am na solo leeral yi nga fi def aussi am na solo ndax borom xam-xam saa su ne fépp fu mu toog xam-xam rek la fay wax ndax ci sa biir kàddu wax nga ko nee nga werante beeg yooyu coow li yooyu bom duma ci dugg ak yooyu muy loo xamante ne vraiment rafetlu nañ ko lool lool lool di la sant di la gërëm di sant aussi les internautes du ñu doon seetaan si Sénégal di leen wax ne seen émission nay leer nii la rek ñu sonnal invité bi nañ ko bàyyi mu wax programme am wax xalaatam wax aussi li muy xaar ci sénégalais wax aussi li muy xaar parce que nekkuñu ci euh, débat xuloo xuloo xuloo parce que je pense que ne amul sens donc loolu mooy émission bi di euh, leen jox euh, dig daje ba beneen incha allah